mbokk yi dal leen ak jàmm ci bët set point com tey di alxames ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru janvier atum 2021 njiital réew mi kilifa diine yi kilifa aada yi ak jàngu bi dañoo takku ba dëgër boole seen doole ngir xeex mbas mi naaw ñuy loru ci jàngoro ji dafay yokk observateur di ñu xamal njiital réew mi Macky Sall xalif généraux yi ak njiital jàngo bi jël nañu seen dispositif ngir daan covid 19 bi Walf Quotidien dem ca université Cheikh Anta Diop yëkkati ay chiffres yu ragallu journal bi di ñu xamal ca université de Dakar 8 cas la ñu enregistré ñett ñi ay enseignant lañu ci vague bu njëkk bi ci ñaareelu vague bi 4 cas la ñu enregistré ñeneen cas contact yi dañu leen ber ci pavillon bu ñu duppee Covid 19 Walf Quotidien ma ngay calculer ñu faatu ci mbas mi 600 morts la ñu wàññi fii si réew mi ministère de la santé déclaré 25 407 cas positifs la dem ci benn kër bi nga xam ne ñett ñu bokk benn famille ñoo loru ci coronavirus ba tax na Quotidien di ñu xamal Kaolack ak Mbour risque am na fa ndax yi ñoo ngi yokk enquête gëstu ci vaccin bi ndax ko amul doole du si jot tubaab di ko tuddee la loi des prix Washington ak Londres dañoo am lu takku ci vaccin Pfizer Moderna ak AstraZeneca Union européenne lot nañu am ci vaccin bi Afrique di yuuxu scandale laas jox kàddu gi professeur Adama Kane cardiologue di ñu xamal kaa anomalie mën na indi mort subite muy ñuy dox rek daanu faatu li gën a fës ci yéenekaay yépp muy ñëw jaari saw ku nekkoon meilleur élève di Sénégal ci atum lu toll ci ñaar fukki fan kenn gisu ko mujj nañ ko gis jébbal ko autorité sénégalaise yi jaari saw mu am lu toll ci ñaar fukki at mu nekk classe préparatoire ca lycée parisien Louis le Grand ñibbisi na fii ci réew mi la tribune moo joxe xibaar bi dafa voyager ak son parrain bay Mbaye Thiam ci vol d'Air Sénégal mu décolle aéroport Roissy Charles de Gaulle ci fàttali Bruxelles lañu ko gisee fëre ca Belgique jiital réew mi ci laas di sàkku rapport ci projet yi nga xam ne wàllu financement xëyu ndaw ñi la ndax njiital Horizon sans frontières Boubacar financé réew mi nguur gi da ko sàkkal pexe xibaar bu neex ci les échos ndax Macky lu mu digg woon dina ko def muy waa Mbour kat tañu tojoon seen kër journal bi duñu xibaar ministre Yankhoba Diattara moo ko wax Macky Sall ci conseil des ministres bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bii di observateur politique bu Sénégal mu ngi ci air bu bees njiital Dakar dem dikk bu bees bi yóbbu na maître Moussa Diop ci yoon famille Diol dinañ noppalu ci jàmm ñi ñu njot ba ñu faatu police bu Denver teg nañu leen loxo suspect yi am lu tollu ci 15 ans ak 16 ans muy fukki at ak juróom ak fukki at ak juróom benn ñoom ñoo taal këru Jibril Jool ba ñu faatu ak famille bi yëpp observateur di ñu xamal présumé auteur yu taal kër ga ba cinq sénégalais yi faatu ca teg nañu leen loxo ñett yi ñu njort ñu ñoo def ay mineur lañu ñu leen tuumaal meurtre premier degré ab bâtiment moo daanu ca xodo ba muy société 3MD entreprise bi yëngu ci wàllu groupe électrogène siège bi nekk ci Dakar ni ki démb ouvrier yi doon liggéey ci la bâtiment bi daanu seen kaw bilan bi ñaari doomu aadama ñoo ñàkk seen bakkan ñu bëri jëlee ci ay gaañu gaañu Sud Quotidien wax ci vaste opération de sécurisation ci robel scandale foncier bu am Zac Mbao Socobek ak Edil Sénégal ñuy ay vendeur invisible tribune di ñu xamal Boubacar Sèye dafa feebar activiste bii di Assane Diouf bàyyi nañ ko bu ñu doyloo Seneweb ndax juróom-ñetti weer mu ngi nii mu ngi ci kaso bi léegi am na liberté ginnaaw ba ko chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Dakar Assane Diouf nangu na ni moo def li ni mel ñu ko doon toppee yëkkati kàddu yi ñaaw di ko teg ci kilifa yi ca Kaolack sub division des douanes ñoo teg loxo sept tonnes yamba dorog bu ñu teg loxo ci atum 2020 buñ ko xaymaa ci xaalis toll na si un milliard franc CFA maam Assane Cissé nekk chef de la division moo def bilan annuel bi ci wàllu drogue bi ak médicament yi Walf Quotidien du ñu xamal fanweeri doomu aadama ak ñaar lañu ñu teg loxo ci at mi ci wàllu contentieux muy mille 1772 moo tax lu ëpp ci cent quarante million ci wàllu alamaan douane am 10 milliards de recettes budgétaires ci at mii ñu génn ca Touba ab mag bu am lu toll si juróom benn fukki ak juróom-ñaar moom lañu teg loxo ak cinq juin yamba yóbbu ko prison centrale de Diourbel moom dañu ko bett ak yamba ñu defeere ko ca tribunal grande instance de Diourbel dañu ko placé sax sous mandat de dépôt ca région bu kaw Kaolack juróom-ñeenti doomu aadama ñoo ñàkk seen bakkan ak ñu fa amee ay gaañu gaañu yu bëri ci ab accident ca Daga Jaxate mu ngi amee niki tey ci suba ca commune Gathia de muy collision camion ak véhicule transport en commun minicar ñoo mbëkkante ci fàttali sax juróom-ñeenti doomu aadama ñoo ci ñàkk seen bakkan ñeneen ñi jëlee ci ay gaañu gaañu yu métti xew-xew bu jéggi dayoo ab ASP di wuyoo si turu MB nekk service social ca Vélingara dafa dagg loxo jabar ji bu ñu sukkandikoo ci l'observateur dafa soupçonné jabar ji ndax dafay mooy ak benn dëkkandoowam amee ca commune Sarekoli faree fële ca Vélingara journal bi duñu xamal coup de machette la ko jox lu bëri te New York Moussa Camara moo faat yaayam tiire ko bal yu bëri xew-xew bi mu ngi amee ca Harlem moom sax blessé na yeneen nit ñi information yi ñu ko nangoo ci immédiat da wax yaay ji deful benn effort deful maanaam deful benn jéego ngir wutal ko liggéey mu am lu yaay ji sax am lu tool ci ñeent fukki at nationalité malienne ak gambien mu bàyyi ci ginnaawam juróom-ñetti bant la Njaay def révélation bu mag wax jafe-jafe yu muy jànkonteel ak Marodi moom sax nettali na fu mu jaar ak naka la def ba dugg ci Marodi naka la si génnee leeral yi moo ngi ko def ci Dakar Buzz ba tey mu ngi xamle ci micro Dakar Buzz naka la teewaayam fële ca États-Unis ak motivation mu def lii di cinéma sans limite ci xëtam bu njëkk def nataal ci Aziz Ndiaye promoteur fu mu juddoo fan la jaar ak naka la def ba am yile koppar Aziz Ndiaye sax na naka la def ba génn ci làmb ji xibaar bi ñoo ngi ko nangoo ci san limite xibaar tàggat yaram Liverpool dina janoo ak Tottenham niki tey ci 20h record di ñu xamal Liverpool bu Sadio maane bu gañëw mën na defaraat toogaayam ci Premier League Manchester United dafa daanu ci kanamu Sheffield ñaari bal ci benn Manchester City nekk ci nekk ci bopp bi jàmbaar ñu détrôné ko jaraaf mu ngi ci podium bi mbokk yi jërë ngeen jëf